asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi santaat nan sëriñ tubaa xaadim rasul sunu yaakaari tey ak ëllëg yeesalaat sunu pas-pas ñaanal sëriñ tubaa cheikh mahamadul muntaxa yàlla na ko fi sunu borom gën a yàggal gën a dolli ak wéram amaat mbégte ci toog ci jataay boo xam ne jataayum ndigal la bu bàyyi ko ci sëriñ tubaa cheikh Mahamadul Muntaxa waaye jaar ci rakkam cheikh Mahamadul Bachir bi yore kàddoom ginnaaw boo xam ne xew-xew bii am ci Touba am na ci te sëriñ bi jàpp ne xew-xew boppam a njaboot gi njabootuk boppam la tax mu woote ca këram démb ci àllarba ji yemoo ak fukki fan ak juróom-ñett ci weer wi woolu cheikh Mahamadul Bachir mu cheikh Abdoul Xaadir mu ñëw toog mu woolu sëriñ Abdoul Ahad mi nga xam ne moom lañu dénk dëkk bi mu ñëw toog mu woolu sëriñ Abibu Mbàkke moom Cheikh Mahmadul Fadal ak daayira nooru daaree ni Touba ci kanam ñu ñëw toog mu woolu sëriñ Yuusu Jóob ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci kuréelu Hizbut Tarqiyyah ñu ñëw toog sëriñ bi yëkkati limub ñaari téeméeri million teg ci seen loxo sëriñ Abdoul Ahad Ka yëkkati juróom-benn fukki million ci turu maire bi teg ko ci loxol sëriñ bi mu teg ci seen loxo sëriñ bi na leen nag yéen ñii ànd nag dama bëgg ngeen nosu liggéey bii ngeen wuutuma ci te jàpp ne maa ngi ci ñu daje foofu nag mu ne leen lépp lu ñëw danaa ko teg ci seen loxo waaye na ngeen ma ko saytul ba ñuy nekk ci ay jafe-jafe baytu sëriñ tubaa xaadimu rasul la waxoon ne waltu basir bi yataama dawaaman insihim abaahum kulla hiini loolee na feeñ ci yéen seen jëf ji loolu tax nag foofee ñu daje fa sëriñ bu Mbàkke jiite daje ba waxal boppam sëriñ bi ne ko kon dang ñuy wutal aw tur sëriñ bi daal di delluwaat wutloo sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ni muy def mu di delluwaayam wutloo ko aw tur ba mu ubbee jukki bi mu tiim ci la yam ci junnatun liman nasamahu mu ne leen nag tur wii sëñ Tuubaa ma ko tànnal tudda leen ko kon ñu xam ne tur wu bees la wu juddu ngir wallu ji ne ci jafe-jafe yi loolee nag fa lañ dafe ab daje ànd ko ak kuréel yii ma lay wax di mairie bi nooru daaree ni tubaa ci kanam ak isbu tarxiya waaye sëriñ bi yemut ci loolu da leen wax na leen nag def naa kër sëriñ Touba ga nag ca kaw étage ba Ndar Fall ngeen def ko mooy seen quartier général ngeen toog nekkal ma fa lu ñëw dana leen fa fekk moo tax tey jii daayira nooru daaree ni tubaa ci kanam àndaat ak commune bi ak isbu yenn waat fi di nas nag coocu nag lañ def sëriñ bu Mbacke muy président bi sëriñ Abdoulahad Ka nekk vice président bi Serigne Youssou Diop nekk coordinateur bi bi ñu fi dajee nag ba tënk ba noppi kaddu yi nga xam ne moom lañ tënk moom la Serigne Youssou war a yëkkati waaye ñu xam ne Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa na mu ko waxee nee na nañu jàpp ne loolu ñu tànn muy fukk ak juróom de ay kuréel ñeent du ñett du ñetti kuréel ñeent la ñett yaa nga foofa benn bi mooy man ma toog fii ci kër sëñ Touba gi nekkal leen fi kon ñun ñëpp ñu maa si déglu kaddu yi nga xam ne moom la ñu tënk jox ko sëriñ Youssou mu war koo jottali mbooloo mi ñun ñëpp ñu maase déglu ko. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñoo ngi nuyu mbokki taalibe yëpp di tàmbalee suñuy kàddu yeesalaat suñu jaayante ci na Ahmadul Xaddim di sant Cheikh Mamadou Muntaxa mi nga xam ne moo yor sunu nos di nu wommat te yëg nañ ne li mu bëgg ci nun mooy ñi gënoon a baax ci lislaam bu ëllëgee suñu borom bu leen di teral nun ñi tey ji ñu toogandoog ñoom mi ngi ñuy dimbali di ñu wommat di ñu xamal nan la ñuy liggéeyal Sëñ kon yàlla na ko fi yàlla yàggal mu amuk wér ba li mu nisar bëgg koo def ci yoonu Sëñ Tuubaa lépp mu def ci lu kawe njort ñoo ngi santit njabootu Sëñ Tuubaa gépp ndax xam nañ ne fu Cheikh mun taxaat taxaw ñoom ñëpp fa lañ taxaw loolu bi génn kàddu lañu seen jëf lenn la kon moom bu ñu ko tuddee rek tuddaale nañ njabootu Sëñ Tuubaa gépp euh, di sant nag Cheikh Mouhamadoul Bachir ndax kàddu yi mu jottali démb ci àllarba ji muy fukki fan ak juróom-ñett ci septembre ñu ñëpp dégg nañ ko kon moom la sëriñ bi jox ay kàddoom mu jottali ko mbokki taalibe yëpp bu ñëpp déggandoo xam ne yitte ju taxaw am na Cheikh Mamadou Mountakha mi ngi taxaw ca kanam ni mu taxawee ci kanam ci xare boo xamante ne dafa mel ni képp ku yaakaar sëñ Touba sa pas-pas mooy doon ci dara muy jafe-jafe boo xam ne ñëw na ci Touba te sëriñ Touba xam nañ ne Touba moo doonoon fu àdduna ak àdduna ji mu amoon joo xamante ne bëggoon na ko noo xamante ne lu ko fi waay defal sag pay moo la koy moo moo la koy joxal boppam kon moo tax li Cheikh Mamadou Bachir wax dong yëpp dégg nañ ko Cheikh mun taxaa moo sos ab kuréel boo xamante ne tudde na ko junnatun li man nazamahu mi ngi ko sosee ci ñetti kuréel yi ñun ñëpp ñu teew mooy Touba ca kanam la woo woo Hizbut Tarqiyyah woo tamit euh, commune Touba ku ne xam na ne commune Touba lépp lu ñuy def ci wàllu mbënd lu ci waay def ñoom nga ñoom ngay ñoom ngay jàppale ku ne xam na ne Touba ci kanam yàgg nañoo liggéey ci loolee ak yeneen fànn yoo xam ne lépp Touba rek moo lañ ñor ñun itam dafa mel ni bu ñu nee Hizbut Tarqiyyah ay soldats yi Sëriñ Touba lañ yoo xam ne dong yëpp dugg nañ ci biir kon sëriñ bi dafa xam ne àdduna moo toll ci jamono joo xamante ne euh, dafa mel ni wéet ak beru du tax a gañe ab xare mboole ñu bokk yitte dañuy boole seen bopp boole seen yitte boole seen pas-pas boole seen i pexe su ko defee lu ñu song mu daanu kon loolu moo waral lii nga xam ne Cheikh Mamadou Mountakha def na ko nun nag wuyu si ndax amuñu ak bëgg amuñu ak tànn bëggam rek ci la ñuy ci la ñuy gont ci la ñuy ci la ñuy moom nag moo tànn tur wi ba noppi it mu mel ni mu jublu compte boobu nga xamante ne dañ ko war a dañ ko war a dañoo war a ubbi ab compte boo xam ne tur woowu ci lay nekk ndax mënu mënoon na ko def ci Hizbut Tarqiyyah waaye defu ko ci mënoon na ko def ci compte Touba ci kanam defu ko ci mënoon na ko def ci compte commune bi waaye defu ko ci dafa sàkk kuréel bi dañoo mujj jël procédure d'urgence pour créer li nga xamante ne mooy tax ñu mën a ubbi ay compte kon fi ñu toll ni ci jantu benn bis am nañ compte bis am nañ compte Ecobank Ecobank te yeneen banque yëpp nañ ci ami compte ndax mbirum sëñ Tuubaa faw da ngay bàyyi xel ne kenn ku ci ne mën na cee jàpp dara waaye kenn mënu ko matale euh, bu dee compte Wave it ak compte euh, Orange Money wala tamit euh, compte Expresso yooyu yëpp dina ñëw te it réseau réseaux sociaux yi incha allah dinañ ko yi jàllale ko ba murit fu mu ne daal di xam ne lii yitte jaa ngi nii te lii mooy taxawaay bu mu laaj ñu bëgg leen leeral ne nag dëgg la jël sa ñaq def ci bari na ñuy woote di bëgg xam nuñ koy defee waaye dafa am loo xam ne moo gën a jàmp ndax sëriñ bi dafa jëf ñaari téeméeri million bu ko jëlee def ko commune bi indi juróom benn fukki million kon fi mu toll li gën a jàmp mooy taxaw ci recensement yi ñoo ngi ci te loolu mënuñu koo def te ànduñoo les services compétent de l'État sous préfet ñoo ngi ànd ak moom moom mooy mobiliser li nga xamante ne moom la ñuy wax la commandement territorial ñu ànd ak ñoom liggéey xam ne dañoo toll ci jamono joo xam ne ku ne da ngay jox sa morom loxo ndax jënn yitte la muy un sursaut national euh, loolee nag li ñu ci bëgg xamle mooy recensement bi duñu bàyyi dara diggante ñan ñoo loru ci seen i dëkkuwaay ñan ñoo loru ci ñoo xam ne dañoo ñàkk seen bakken ak taxawaayu seen seenu njaboot ak ñi nga xam ne dañoo gaañu ñu war leen taxawu ci hôpitaux yi ak lépp loo xam ne jëm na ci kër yi nga xamante ne ndox mi dafa war a génn wala ñoo xam ne dañu war a toxalee foofu yóbbu leen feneen lijjanti ay kër yoo xam ne fa la ñu leen di yóbbu ak ay barab ba ci tubaa ci kanam am na barab bu yaatu boo xam ne faggu nañ ko sonn ci ngir mu doon barab boo xam ne dina am ñu fa mën a ne loolu ñu boole kook yeneen pexe yoo xam ne ay taalibe ñu ngi koy def waaye balaa muy mën a yomb faw commission yi taxaw ñu ñu fexe ba nosu nosu goo xam ne mooy tax ku am xalaat bu rafet wala ku am mën-mën nga mën a xam foo koy jaarale loolu moo waral kon comité de pilotage bi ginnaaw bi ñu ko taxawalee ci njiitu ñetti kilifa yi nga xamante ne yàlla dogal na ñu nekk ci boppi mbooloo yooyu ku ne xam na ne am nañ général ndax sëñ Mountakha nee na ñett ngeen woon waaye man maay ñeenteel bi loolu nag doy na sant yàlla doy na dalum xel euh, mooy wane na it fa mu toog di ñaan moo lay wóor ne lépp lu nu yéene ci suñu xol la koy jàppandal ci moom mee rek la ne ndax saxaaba yi li ñuy baax baax baax ak li ñuy jàmbaare jàmbaare la leen tax la leen la tax a gañe xare yi xam nañ ne ci mbóot mi ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam la nekkoon loolu mooy dox bu bisub tey xam ne liggéey bi commission commité de pilotage taxaw na am na ñoo xam ne ci tubaa ci kanam lañ leen jëlee am na ñoo xam ne ci Hizbut Tarqiyyah lañ nekk am na ñoo xamante ne tamit ñu ngi nekk ci commune bi ñooñu léegi am nañ quartier général fii ci kër sëñ tubaa ngi jàkkaarloog jumaa ji bis bu set dañ fi xëy ku fi ñëw guddi di nga leen fi fekk ku fi ñëw bëccëg di nga leen fi fekk amatul arrêt ndax du yitte yoo xamante ne mën na am attandiku wala mën na am feneti wala mën na am jëlale faw day doon loo xamante ne permanence la laaj Euh, ku ñëw indi dara it boo indee di nga leen fi fekk koo xam ne nag da nga soxlawoo ay numéro yoo xamante ne mën nga leen a woo ngir ñu gindi la ci fi ngay jaarale li ngay def nañu xam ne bu dee compte bancaire yi moom wax nañ leen ko junnatun li man nadamahoo kuréel la am na ay compte bancaire kuy joxe lu jëm ci yitte ji mun Muntaxa am day foofu nga koy dugal loolu kon leer na euh, am na commission administration administration am na commission finance am na commission technique am na commission tamit sociale waaye tamit am na commission communication yooyu yëpp kon nosu na noo xamante ne euh, dina amaat yeneen euh, yeneen communication wala yeneen leeral yoo xam ne ñoom ci seen bopp dinañ ko def ci presse bi mu gën di yaatu ba ñu gën a xam ne yitte ji taxaw na te saa su dem dem na te dootul dellu si te bu demee rek te te yóbbaale lu ñu ak farlu boo moytul dina am ñoo xamante ne lor bi day gën a diis ci ñoom kon moo tax kon ñu bëgg ñu xam ne nii la ñu nii la ñu taxawee ma bëgg nag. fàttaliwaat bokki donga yëpp ñu xam ne njabootu sëñ Tuubaa gi ñoom benn baat la am genn kàddu la am fi toll ni kër yi nga xamante ne mooy kër yi ñu mën a dugg bare na ci ñoo xam ne ci njabootu sëñ Tuubaa dañuy ñëw raam ci kanamu Cheikh Mamadou Mountakha ne ko nangam am naa ko mën nga ko boole ci yitte ji te ñu bëgg sax feeñ kon nun donga yi nan xam suñu bopp nam xam suñu bopp Tuubaa gi mooy pàgguteefu sëñ Tuubaa lu ko fi waay defal fii ci àdduna bis doo wéet di nga fa am ndimbal te sëñ Touba la koy defal ndax wax na ko ñëpp dégg ko ku ne xam na ne Touba gii moom wax na ne dóor yi wa maa lixtiira naaj jiiraani naajiyatun min jaalibil xusraani ku fi nekk doo yàqu lii nga xam ne moo ñëw di nattu di tiis nañ xam ne saxaaba yi daan nañ dajeek moom nañ xam ne ñu àndoon ak sëñ daan nañ dajeek moom nañ rafetal rek te te te dekkalaat li nga xam ne mooy solidarité bi suñ ko defee dina woyof waaye suñu borom moom moo waxaloon boppam ne wala ko wannakum bi shay'in min al xawfi wa ju'in wa naqsin min al amwali wal anfusi wa samaraat loolu bu ko waxee daal di indi laamu xasab ku ne xam ne la suñu borom waat dina ko def kon ab jullit bu bëggee muy yomb rek ak di neex ci moom loolu na xam ne bu bu bëggee sax ci yoon wi du loolu mënta ne kon ñu ngi sant kilifa yi ma ko seqal nga xam ne ay kilifa laa leen def ndax euh, sëñ sëñ sëñ Cheikh Ibrahima mii dafa mel ni fi mu toll daa mel ni sëñ Muntaxa ci boppam moo teew ci jataay bi Euh, sëñ sëñ sëñ sëñ Abdou Lahad mi itam ku ne xam na ne commune bi li ku ko sëriñ bi dénkee dong bu ne war naa xam ne sëriñ bi moom lépp lu mu joxoñ ñun moom la war a joxoñ salabul ixtiyaar mooy yoon wi fii du barab bu ñuy wootee naan nangam la ñuy def diw laa bëgg wala nangam sëriñ bi lu mu bëgg rek nañu jàpp topp ci ginnaawam bu doonoon ko tëre sax sunu ànd ak moom dina tax mu mën euh, euh, sëñ sëñ sëñ Abdou Lahad mi itam mi ngi fi teew teewaayu sëñ Abibu teewaay teewaale fi mboolem waa Touba kanam kon ñu ngi leen di sant ànd bi rafet na nangu ndigalul sëñ bi tax na mu wóor ma ne liñ bëgg te di ko fas ci suñu xol nañ ko am waaw jërë ngeen jëf lii daal moo doon kàddu yoo xam ne mënuma ko ci wan ñàkk a jot jërëjëf